ca mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal à travers ah yéen ñu ñuy suivre kenn mënut a lim yépp ñu teew ñu ñu ñu teew fii ñëpp ak fi ngeen ñuy suivre ñu ngi ñëw fi nga xamante ne mooy kër Ada fas Ada Ndakaaru gars yi ñu ne léegi Sangomar Jal Diop Sangomar diggante moom ak Zos la woon coow li bëri nee naa leen dañ leen di toppal làmb avant pendant après yàlla dogal moom mu am ndam ci kaw Zos mu ne ko woon xale zos ne woon ko dafa am lu ma bàyyi woon dama koy jël si moom mu ne ko doo ma téye tey confirmation am na dinañ waxtaan ak moom ci wàccaay bi waxtaan ak moom ci masse bi nga xamante ne moom la wàññi ndax masse bi ñu ko doon gisee ak bi bokkul lan moo ko waral ndax tegtal la wala combat bi lan la ko jaraloon aada ñu ngi leen nuyu di la ziar di la wax félicitation. maa ngi nuyu di leen ziar di leen fay ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te wala almis ba Karafal waaye nuyu di leen ziar di nuyu ndigal Kalafal bu baax a baax ñu jaakaraa bu baax sama sëriñ sama Kumba Faal bu wér-wér nuyu Ablaye Diop xaas sama papa lépp waaye sëñ Mor bi tamit bu baax a baax a baax <laughs> di nuyu àdduna waaw di nuyu diaspora bi yëpp waaw di nuyu tamit saa Tuubaa bu baax bu baax. macha allah ñu gis saa buy rek da ne damaa jiw par rapport ak ci li nga jóge mooy sa diggante ak Zarko nga ñëw am Zoss coow li bari ñu ne Zoss day lan la woon. Ndiaye maa ngi koy nuyu waaw ak Fallou Fallou Diour moo sëñ Fallou la rek làmbu lépp tetal la waaw am na fu ñu am na fi ñu ñëwaat am na yenn làmb yoo xam ne ku ko seetaan dana xam ne loolu tojtal la tojtal la. daaw fi ñu bëgg a jëm si làmb. nangu nga ne da ngaa juumoon. tojtal la tojtal daaw am li ñu bëgg si làmb waaw. te loolu loolu mooy tax nga yegg fi nga bëgg a waaw daaw balaa muy gën a metti nga dem ba egg egg te mënoo ko jot. boo ko amee fii kay boo demee egg di nga ko am. Mhm. ayca combat bi lan la la jaral sa digganteeg Zos nga nekk xale mu nekk mag ndax olof Ndiaye ne la ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toog. nga ñëw tey rëñe ba ñëw si fi nga xamante ne mooy sa diggante ak Zoss lan ngay wax àdduna combat bi lan la la jaral. waaw combat bi waaj nañ ko rek waaj nañ ko liggéey nañ si lu bëri ate combat bi boo gisee lépp athlète lañ ko liggéeyee athlète viva vivacité waaw man vivacité laa soxla soxla mu diis xam naa ne waa ji maa gën a suuflu yenn yenn yenn geste yi bu mu koy def moom day day ah, poids bi daa bëri day ko xam na ni daa dem États-Unis ñëw mu at liggéey athlète rek def fitness boo koŋ. Mhm. mais gars yi xeeboon ne Ada dafa tuuti ci combat bi maanaam combat bi Zos moo laajoon masse bi ba tax nga euh, at liggéey li nga xamante mooy athlète. waaw sport de combat. wala say course ñoo la digal loolu. daa am sport de combat comme sport de combat bu nekk ak lu mu laaj. bi lii la laajoon ma gaaw. ndaxte bëre laa soxla soxla ma taxaw di xeex wala di buuxante yenn poids boo ko amee da taxaw di buuxante wala nekkoo di xeex wala di yàq làmb waaw moo tax tey ñu ayof suupul moom suñu bopp bëre lu neex suñu supporters lii rek lañ bëgg suñu bëre waaw bëre rek lañ bëgg suñu te def nañ ko. dañuy yeggali làmb ji mais balaa loolu démb nga préparé combat ba mu des ay minutes ndax ku préparé combat ay weer. ba mu des ñu ne suba la loolu mun nañ ne ay heure moo ci des ñu ne la sa adversaire dafa def soog blessé na lan lan nga njëkk a xalaat. waaw loolu noonu tey jii bu ma ko yëgee d'avance xam na ne suñu borom la rek tey lool bu amoon tamit dañuy jàpp ne yàlla la rek parce fi moom yàlla rek ay dogal waa lépp yàlla la amaana waaw mais instant yoo noonu moom xawoon nañ am dut si laa ji daal sama gars dañoo xam ne garaaw dañuy bëre dañoo xam ne damay bëre ba si tey ba fa yar ba ay 10 heures. ay midi sax ba heure bu ñuy dem sax jàpp ma dinaa bëri leneen ba isaan na ba ma gis waaj laa am confiance xam ne damay bëri waaw. ñu ne loolu tojtal la aada commencé woon na xëpp ay buté jot nga tuur ay buté wala gars yi dañ doon wax noonu. non man dama xam ne ne contra laa yoroon te damay signé sama contra contrat man dama koy dama koy dama koy dama koy eggali ba mot sëkk waaw ndaxte lo laamu laa sekk ak ñoom bëre waaw. tuur benn buté. tuur aada jot na tuur buté maanaam. demoon na ba jàppatul ne day bëri Zoss. man du ma mos a tuur butéel ndax nekkul Zoss rek moo nekk sama kanam mm. am fu a jëm si laamu daal. incha lan nga bëre tey gars yi ne Ada bi arbitre sifflé génn sa diggante ak Zoss lan nga bëri. waaw génn arbitre sifflé na génn sama diggante ma dëggal sa bopp def yëfu booy rek ne maay xale mag moom diriger xale rek mooy diriger man sama ña sama combat yëpp maay diriger. dama ñëw diriger li mooy yàlla may mu jël ndaxte làmb noon la say supporter loolu nga leen mën a bégloo nga ñëw wane sa bopp waaye waxuma la ngay taxaw foofu ci jëmale 15 minutes wala ay trente minutes man damay ñëw sama làmb xool lu ma fi indi lu ma fi indi daal moo ma ñor waaw ma ñëw dëggal sama bopp wane sama bopp. waaw aada du xeex aada déclenché xeex bi bi nga déclenché xeex bi lan nga bëggoon raak nga bëggoon ngeen jàmmaarloo am jaay joxal jóg wala am jóg joxal jaay lan nga bëggoon ci déclenchement bi wala da ko bëggoon am foo ko jàpp. woo ko ci xeex te du doon loo xam ne da nga koo gëm wala loo gëmoon la. non bëre dóor la ñu wax bëre dóor la ñu wax. waaw aala du xeex du xeex moo la tey ma ñëw dëggal so dóor ko dóoraat ko <laughs> waaw. ku nga dóor sentir nga ne dal. moom waaw dóor naa ay coup moom tamit dóor naa ay ku nekk waaw foo góor la rek ay coup moom day taxar naa waaw. tey bu fekkoon am na vivacité comme yow. ngeen daje rëpp. tey bu gaawoon combat bi njaax lay doon da ngeen koy séddoo njëkkante la woon du njaax ndaxte foofu noonu dañuy gis dañuy gis combat yi seeg rek bu gaawoon ni man di nga xam <laughs> ne leneen la fi fekk waaw. fi fekk. non bëre bu wow kongu rek ndaxte ñun dañoo fawee bëre mun ko. waaw bu boobaa da ngeen di wure. waaw dañuy bëre rek <laughs> dañuy bëre rek. <laughs> fan nga jàppee confiance na tey fii jeex na foo jàppee Zoss nga ne fii moom jeex na woon oh, confiance man làmb làmb bu ma am bu may dem confiance laa yóbbu waaw sportif laa lu ma entraîné laa gëm ak sama bopp combat bu ma dem dama yóbbu sama confiance xanaa suñu borom ñëw ak dogalam. Ada Ndakaaru saa buy bëri li bëri coow li la yaa ko bëgg la. ah yàlla rek yàlla rek du man de yàlla la waaw amaana yàlla mooy maye du ñu ñu caay féete ginnaaw yëpp tamit. waaw di leen nuyu bu baax baax dinañ làmb laa waroon bëreel yàlla may ma ndam maa ngi ñaanal jàmm bu baax di ñaanal natt bu leen suñu borom teg yàlla na jeex jàmm ak salaam képp ku caafee di gannaaw maa ngi lay bëggee bu baax dina la ñaanal jàmm waaw. tey loolu aada fu mu jëm gars yi nee la aada laa fi nekkal rek sport laay def sport laay def làmb laa fi nekkal rek ku ñëw rek ma bëreeg moom waaw moom mooy loolu. moo tudd tudd mbër. du ma wax man maa ngi samay entraînement daal nekk sama bopp waaw maa ngi sama entraînement nekk sama bopp. Mhm. gars yi tëggal la suus. supporter di ko wey na suñu mbër day suus di bëre. <laughs> waaw suus di bëre wóor na aada. non loolu loolu yàlla nañ si yàlla musal taalibe laa xaw ma yooyu. Baye <laughs> man xaw yooyu de Baye Fall laa taalibe laa ah, waaw Serigne Bamba rek Café baax jeex na tàkk waaw kese amul leneen noonu la demee. Ah, sama papa moo ngi fi maa ngi koy bu baax di ko mastaw si entraînement ak lépp moom moom amuñu fayam suñu papa la suñu sama xarit la sama di ko nuyu di ko jaajëfal di ne kontaan naa bu baax gis naa entraînement entraînement yi fay na waaw ah, moom lii rek lañu ñu waaw ñu am ndam moom muy bëgg amaana amour rek la am mais bu ñu amee victoire ñu ñoo koy ñu ñoo koy féete quoi père bëggee dinay kontaan naa bu baax dellu si nga. dellu si kom. fan nga ma fekk ni ci ban dëkk la fii lañ dëkk ñu ñëpp waaw dañoo bokk lu ñu mënta séddoo sama papa la sama làmb man dama doon téye cumukaay. ñu tuddee ma cumukaay may toog cumukaay mbër tarbiyu làmb. ban mbër nga doon toogal ci na jarul ma koy tudd bëri may toog kase <laughs> may tee ay cumukaay damaa tarbiyu làmb damaa tarbiyu làmb bu kase kay. waaw di nuyu waa Nangan Samb bu Nangan Samb maa ngi leen bu baax ñoo joor côté boobu maa ngi Nangan Samb gis naa li ñu taxawee ji waa Nangan Samb la ba kontaan duñ ci dagg dara mais gars ñu ngi wax adversaire aada tey am nga ñoo bëgg bëree ñan nga bëgg bëree ah. tey jii ñan nga bëgg bëree aada kan la bëre ñan ñoo nekk sa kanam déedéet man la sport laa fi nekkal. déggoo ma dix avance bu taxawal léegi ma jël lépp. mais am nga koo si gën a choisir yow dem mooy sama métier. kon pour làmb ma làmb ku ma boole rek ma bëreeg moom ku ma làmb boole ma bëreeg moom xale la non man xale la ah. ma fu ma jaar yoon la. parcelle ngay delluwaat. non parcelle. Pikine parcelle close naa fa quoi garaawul parcelle moom mooy loolu lii rek moom booleel ñoom léegi jeex na non làmb duma boole teg ñoom non la non non bilaay làmb duma bëri waa parcelle dina sa waay wax leen si leneen léegi Lamine xam la may wax ji si ndam si ndam laa jógee. bu couronne bi nekkee parcelle la. moom moom ba ma jox rek mu ma jox leen mu jë waaw noonu la demee waaw. loolu day bàyyi man duguma si laamu pour bërintu daa li ma dugg si laamu déggoo ma de wax laa la wax bërintu laa ma dugg si laamu bu nekkoon bërintu moo tax ma dugg si laamu fi ma fi ma toll nii ma bàyyi ko daa li ma bëgg quoi waaw kon du ma naree bërintu yenn combat yi nii nii man man laamu déggoo ma de daa am ma bëgg a si laamu te amaana jamono jii nii nii incha waaw li ñu wax olof Ndiaye li wax ku ñeme dañ laa dee amul lu may tiit ku ñëw amul problème man mun naa. yow ni ma déggee mbër bi nga war a bëreel nekkul parcelle. jamono ji amaana laaw ku ñu boole rek mais foofu noonu mooy loolu. parce que daa amul mbër. waaw déedéet ay càmbaar foofu trois réserves bi nekk fa. daa amul ñi nga soxla. non déedéet pas parcelle foofu sama sama ay nit ñoo fa nekk samay xarit waaw samay lépp. amaan làmb ji la war a xam nga rek ah, bis moo ñu booloon te sama grand la jiitu ma si làmb waaw ah, mais jo champion yi ji bëri nañ man ku ma jox pare naa moom ak ku doon. d'accord léegi nga foo jëm jàmm gën. <laughs> wala <laughs> kenn la ñuy wax làmb rek waaw man amaan lu nekk fii nekk na fii amaan am na lu ma gëm quoi du ay mbërantu du ay ah, man du ma tudd benn mbër waaw am na lu ma gëm te incha allah maa ngi si kaw maa ngi siy dox te amaana incha allah rek lu yàgg yàgg xale màgg na xale daa màgg de. na gars yàgg daa ngeen daje. xale màgg na de xale màgg na de xale moo ngi màgg de te day gën a màgg. non man ah. ah. Lamin Lamin Lamin Lamin làmb la sport la rek ah tey jii tamit bu ñu làmb boole sport la dama koy damay bëri ak moom man amaana kenn mënu maa dóor si làmb man mosuma dem àddoo. musuma dem ñaari combat musuma dem aar musuma ala sama kanam nit man man du ma wax nit man doomu aadama du ma laal balaa nga may laal ma laal la waaw. da nga mu dem ardo da naani soo. waaw damaa bëgg a waaw loolu. naani mais wala soo waaw gars yi door sama kanam bi taf tafaat ma yëngal sama yi. Ah. soo moo fa am wala mais ban nga si bëgg a naan ah, lu ñëw baax na. waaw ñun fii avance bi fi dugg tey tey dafay fa ah, day day ma la sama naat mukk bu duggee léegi léegi ñu ataaya ataaya koy teg instant yi booy commencé nañ teg ataaya di xaar. xanaa booy commencé nañ teg ataaya bi laa wax te lu doy waar laa lay wax sama prochain adversaire moo am problème garaaw. waaw ah ku mu munti doon. lu garaaw lay wax sama prochain adversaire moo am problème yoon bi lii war ndax ah, waaw moo ñu dëdd nii rek kon lépp instant sant yàlla bu baax suñu prochain adversaire. ah lu mu liggéey doyul lu mu waaj doyul si ah, bépp côté nag. loo koy indil ah, di ñaa ñëpp jàmm di bëggee sama supporter bu baax a baax. yan Mbari Ndaw man benn message laa lay wax tey fii nga takk ko man sama morom ma nar a si làmb ma bàyyi ko. waaw ah, man bëratuma sama benn morom si làmb ma bàyyi. déggoo ma man instant làmb nii ñoo ma soxla de sa waay espoir moo ma soxla ndax de xale laa mais sama morom ma nar a gëstu bàyyi làmb waaw. maanaam amoo tànk ginnaaw. xaw ma ko Babacar xaw ma ko lépp li ñuy wax yàlla la fi yàlla rek a fi ne non xaw ma mais man damaa daan samay morom ñoom ñëpp laa daan waaw samay morom ñëpp laa daan ñoom ñoom dañoo tardé ñoom ñuy tëb daal dal yëpp dañoo tardé amaana ñoom bu ñuy bëre sax man bëreegu ma mais yàlla mooy tay te yemalewul suñu juróomi baaraam yi sax tollowul kon lépp yàlla la man mënu ma may sama bopp combat bee passé damaa ngemb sama bopp dem daanu ñëw tey yàlla may ma ndam kon lépp yàlla la waaw. maanaam aada maanaam. waaw man a Zarko da ñëw ma Zarko ma tey mu ngi kilifa yu woo koŋ ngeen ma ma xam yu woo koŋ rek xeeru géej maanaam aada amul tànki ginnaaw jamono ji. mukk lee kanam rek nga jëm. xam nga xale kon instant yi wax wax wax baaxul wax baaxul mais ñun fi ñu bëgg a jëm si làmb dañ fay egg lu lu lu wow koŋ laa ni wax nag xeeru géej xeeru géej maa lañ gën nag wow koŋ. ci nag fu mu bëgg a jëm dama fay dem. waaw mhm. ah, ñooñ ñooñ day fekk ne seen grand frère yi ñëpp ay te dañ koy jëli force indi ko fii. Ah waaw guddi guddi fii. yokk na jëli ko. la incha allah tey lan ngay wax Zoss mu téye carrière am mi ngi premier grand combat mi ko bëre 2003 boobu ba tey mu ñëw bëriwaat ba tey tam tam 2003 boobu 20 ñu wax. 20 ans waaw 20 tey jii nga ñëwaat di bëri moom te bi te boobu ñu fekk nga am 5 ans ci biir wax. Ah. waaw yow tey lan ngay dénk ak plan de carrière ak bi mhm. waaw moom làmb noonu la rek. moom nag bu mu fekkee ay magam da leen puus. waaw nga sport xale. sport tey jii yow <laughs> man mun naa yëngu 24 heures mais mais keneen ku yëngu 24 heures day bàyyi ndaxte man xale laa mm. mais sport xale moom boobu ba mu ngi si làmb gàcce nga làmb laa koy wax gàcce nga làmb Zoss jàmbaar la dafa daan ay champion waaw duma leen daan leen ñu bëri ñuy coow si làmb daan leen kon tey moo bëri moom ba tey yàlla may ma ndam si kaw koy sant yàlla di ko nuyu bu baax man Zos leen ma doon woowee Zos ma nekkee xale di jàng mais Zos ma daw bàqu bàqu bi may nekk xale. waaw waaw ma nekkee xale. non déedéet Zos jàmbaar la Zos champion la Zos Zos xam li ma sport xale. saa yi <laughs> sport xale. <laughs> ay ca aada ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga dallu di la féliciter di encourager Zoss ndax làmb noonu la tey kii day xaar kii day dem Zoss démérité wul li nga war a def yëpp def nga ko tey yàlla Ada fas la àndal ñu ngi lay bàyyi suñu mbokk internet yi nga nuyu ko la neex gërëm ko la. waaw maa ngi sant ñëpp di bëggee diaspora bi yëpp waa États-Unis waa Espagne waa France ñëpp lu ma yi rek damay juum. combat bi INSEP laa xam ne doon entraîné ma toog fi waaw ah, xanaa gisoo fii laa toog waajee te incha allah li ma sama prochain adversaire INSEP laa jëm naa ko déggoo ma ne sama prochain adversaire moo am problème maa ngi nii ñëpp waaw di sant ñëpp war na rasulilah sëñ Ablaye Diop xaas sama papa ji sa mo sëñ Mor sama lépp di ko ñaanal jàmm rek eh déggoo ma ne INSEP lañ jëm. insab si da la lañ jóg du ma mër ah, ma làmb jox la baax na maa ngi sant samay supporters bu baax waaw samay maa ngi di sa waaw waaw di sant ñëpp di sant sama bàjjan bu baax a baax moom mooy baay mooy ndey mooy lépp sama bàjjan dama fayam mooy lépp moom mooy sama lépp waaw di sama waajur bu jigéen bu baax a baax di sama waajur bu góor bu baax a baax a baax di sant ñëpp ñëpp képp ku jàpp sama làmb rek maa ngi lay sant di la gërëm barki borom Touba waa Kara Baye Fall bi maa ngi koy bu baax di bëggee Fass Médina Gueule Grand Dakar HLM Waagu Ñaay Jëppal Wakaam Ngor Yoff Jëppal Baobab Colobane àdduna man du ma rek damay juum nakateet àdduna la daal waa Pout ñëpp barki Serigne Saliou ay géej waay Pikine ñëpp man fépp laa am supporter waa Gambi Gambi Gambia maa leen di bëggee ba Casamance Touba tamit Touba gis naa ñaani bu baax di bëgg di nuyu tamit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké di leen bu wér waaw. Gambie ñëw. <laughs> ñëpp ñëw si làmb ji ñëpp ñëw si làmb maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. dégg naa waa di nuyu tamit waa jàmbaar production. di ne di ne dem a dem ji bu mu xawee def nii. sama sama xel xawul xaw xawul moom ñoom ay lañ. daa jàmbaar sànq chaque làmb bu ñu tëgg rek xaw a def nii. moo tax ma teg sama lépp. waaw jàmbaar maa ngi nuyu waa Mansour maa ngi koy nuyu Papa Sow assurance waa jàmbaar production yëpp maa ngi leen di bëgg di bëggee Zos nekk naa la seet ñu def benn benn yaa ma gën a xam benn ataaya. jaajëf waaw noonu la demee waa. ana dégg naa waa Mouride dañoo ñëwoon si côté si. adduna adduna la.